Nous avons obtenu 119 cas contacts par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis dans la commune de Mbourg, 10 à Kermassar et aux à Amitié Liberté 6 et Yeumbeul 4 à Khombole Rufisque et Tivaouane 3 à Ben Barak Bentali Cambérène Grand Yoff Richard Toll et Saint-Louis 2 à Cité Elisabeth Dara Dakar Plateau Darou Mousti Dieuppeul Kolda Mamel Matam Nord Foire Ouest Foire Pikine Sicap Baobab Thiadiaye et Thiès. 1. À Pikine, Cité Aliou Sow, sité Fadia, Cité Sokosim, Cité Soprim, Cité Tako, Diakhaye, Diamniadio, Pikine Beach, Guédiawaye, HLM, Kaolack xaar yàlla Kër Mbay Fall Koungheul Liberté 4 Liberté 5 Médina ñaari tali Nioro Wakam Passy Petit Mbao Point E Pout Sacré-Cœur Scat Urbam Sicap Foire Thiaroye Yoff Zac Mbao Zone et zone de captage 252 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce dimanche 14 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 31 275 cas ont été déclarés positifs, dont vingt cinq mille six cent trente cinq guéris sept cent cinquante quatre décédés donc quatre mille huit cent quatre cinq patients sous traitement. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal ci ñaari junni ak juróom fukk ak juróom benn test yi ñu def ñaari téeméer ak juróom benn fukk ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee fukk ak juróom-benn ci Mbuur fukk ci Mariste juróom-ñaar ci Kër Massar ak Parcelles Assainies juróom ci Amitié 2 Liberté 6 ak Yeumbeul ñeent ci Xombol Rufisque ak Tivaouane ñett ci Benn Barak Benn Tali Cambérène Grand Yoff HLM Patte Richard Toll ak Saint-Louis ñaar ci cité Elisabeth Dakar Plateau Daaru Musti Jëppal Kolda Mamel Matam Nord Foire Ouest Foire Pikine Sicap Baobab Thiadiaye ak Thiès benn ci Birkelane cité Aliou Sow Fadia cité Soprim cité Sokosim cité Tako Thiadiaye jam ñaajo fij mbiij géejawaay HLM Kaolack kër xaar yàlla kër mbay fall Koungheul liberté 4 liberté 5 médina ñaari tali ñooro wakam passy petit mbao point e pout sacré cœur scat urbam sicap foire thiaroy yoff Zac Mbao zone A et zone de captage ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaari malade ñoo xam ne ñi ne toppoon ci biir kër yi ak ñi nekkoon ci lali hôpital yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bi si yàlla àndee juróom benn fukk ak ñett malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñàkk nañ seen bakkan bu su démb dibéer fukki fan ak ñeent ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nekk ñu topp ci yër kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak benn ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi kaa yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom si lalu hôpital yi ak si malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi